mën na ko jël par décret jusqu'à ce que tey jii nii kat beneen assemblée ba installé wu pour que tey jii acte yi nga xam ne jëloon na ko ci trois mois yëpp ñooñu mën ko habilité à travers ce qu'on appelle yi nga xamante ne assemblée bu bees bi dana ko voté. Hmm, d'accord il a la possibilité pendant cette période là mooy ces trois mois là le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu jël ce qu'on appelle des mesures transitoires. parce que si on lui la faculté des mesures transitoires loolu de juste que tey jii léegi pour ne pas par exemple euh, placer le président de la République dans une situation inconfortable puisque assemblée nationale bi nga xamante ne lu bari moom moo ko waroon a habilité dissoudre nañ ko le président de la République de circonstance exceptionnelle boobu noonu lu yoon da koy jox ce qu'on appelle la possibilité de gouverner à travers des mesures transitoires mmh. leer na naa ñu de yéen su fekkee da am laaj. non koy jox. non man kay tontu na sama laaj bi nee na tontu na kon laaj bi. jërëjëf kon Pape Ahmadou wala ma ko <laughs> ko gars <laughs> man loolu laa koy tooñee muy bañ. waaye sama lexique man des termes juridiques. ah yaag man ah, mooy dictionnaire droit ba. yaag man ba xale yi di utiliser ca fac droit. yaag man ak mag ñi tamit ah ñi ñi merci beaucoup ci kanam tudd fekkee waxtaan bi. nuyu waa maa ngi nuyu waa ne ko mu reer ndànk nag. nee na dëggal si si si si bi mu ngi lay tooñ ñaana nga reer ndànk. saa wolof reeragul turu yàlla lay dundee man maa ci dolli boobu. jaajëf si Pape Amadou mbay jërëjëf ci kanam incha allah kon kon defe naa ne foofu foofu leer naa ah. euh, li li ma leen waroon a laaj yëpp far naa ko laaj Pape Amadou euh, ci wàllu wi ndaxte lii wàllu yoon la te mhm. dañuy soxla tamit ñuy wax ci yoo xamante ne ni ku nekk la nga jànga ah. donc ñu ñu laaj laaj la donte ne ñeen ñëpp ci am notion. non di ko jaajëfal nag. bu baax ndaxte dama koy faral di wax. réew mi bi mu toogee bari na ñoo xam dañ ne woon pat. waaw ah, dëgg waroom xam-xam yu bari yoo daan dégg bi mbir yi mettee dañu noppi su dul woon moom ku mel ni Pape Moussa Sow. ak ñu néew damay bañ a tooñ keneen mais ñoom ñoo ci gën a ràññeeku. te moment boobu. buñ la sax Pape Moussa laa njëkk a woo jotuma ko ma ne xaaral ma woo Pape ah man kay man Pape Amadou Mbaye ñoom ñaar rek man ñoom ñaar rek. waaw ñooy samay waaye ñooy toog fii. Ah. ma leen di laaj may tax ñu jàkk. macha allah waaw ndax euh, a nangu. dëggantaan waaw ndax daa mel ni daal lii mooy tout ce qui se conçoit bien. s'annonce clairement. et les mots pour le dire. arriva aisément wala arrive aisément. arrive aisément yaa tey lu la waxal. Eh, waaw arrive sax ñaar yëpp benn yëpp day ñëw. waa bi présent bi <laughs> arriva <laughs> man dama laa boobu garaawul <laughs> benn la <laughs> jërëjëf mais alors ñu dem ci motion bi balaa ñuy tëj ponk bi ponk bu am solo bi motion de censure bi pourquoi ñuy bëgg ci ngoto mu mooy mooy mooy torop ci motion de censure euh, te alors que Pape Ahmadou Mbaye l'autre jour il m'a dit ne mm-hmm. motion de censure bi bu leen neexee sax mu am le le même jour wala le lendemain. dans les minutes qui si waaw waa ji tegaat tegaat gouvernement bi pour pourquoi euh, lan lañ ci gagneree ah ou bien défaite la venant de ñi ñu ko séqal suñ ko amee. mais amul njëriñ parce que man jàpp naa ni conséquences yu bëriwut en réalité ji bi. Mm-hmm. yow motion de censure boo xam boo daanelee gouvernement bi tey. ka daboon premier ministre bi am na possibilité mën ko tabaat mm-hmm. dans les minutes qui suivent nga xëy daane laat mu xëy tabaat ko en réalité mm-hmm. parce que yow ki nga ni moom nga bëgg a daaneel gouvernement am te parce que ñoom ñëpp kañu ciblé mooy Ousmane Sonko. Mm-hmm. kooku mu amaatoo beneen possibilité pour bañ a mën a doon mu tax mu bañ a doonaat premier ministre en réalité bu fekkoon ni sax boo daanelee gouvernement moom amatul benn possibilité pour mën a nekkaat ministre wala nekkaat premier ministre sax nga ni waaw mm-hmm. mais yooyu yëpp yoon xañu ko ko. buñ ko falee daanelee talaata altine talaata mën na ko tabbu jëloon décret tabbu ko mën na ko tabaat. mën na ko tabaat kon jàpp naa ne conséquences yi ak njëriñ li bariwul. en réalité alors Saa Wolof ma ma ma kii tuuti dem ci moom premier ministre bi mu wax ndaxte sànq boo gisee image sax tuuti nga wayanaan ma ko tuuti euh, mu mu nekk actuellement ca ca diwaanu Matam. Ah, tey jii ñoo amaloon benn benn seet seetal boole caag di jëmbati garab ci zone boo xamante ne nii ku ne xam na nu mu mel déjà boo xoolee sax euh, image nga xam ne chaleur bi donc am na fa euh, yooyu yëpp firndeel mais lu mu ci mën di nekk bi mu paree dafa yëkkati ay kàddu mhm. euh, kàddu yooyu noonu ban jàngat nga ciy def euh, véritablement mooy discours bi mu def bon man nag lien particulier bi nga xam ne <clears throat> moom la ko suñ borom may mu am kook askan wi mhm. man loolu saa su nekk ni mu koy téewee man loolu moo ma dépassé moo la dépassé bari na ci opposition bi buñ sañoon day day day day bali mu yor mhm. wala nit ñi ba ko mais chaque fois da gis ne dafa jege peuple bi. maanaam xam nga nag euh, boo xoolee président Diomaye moom dafa falu tekki ndombo tànkam ci parti bi yëpp. <laughs> première ministre mooy chef de parti. nga bëgg ko nga bañ ko premier ministre moo yor li Wade yoroon li nga xam ne moom la Macky Sall yor li Diouf li sengoor loolu la mm. yàlla dogal. Mm. mais dafa am ku mu xaw a nirool tuuti ba pare te gën koo téye mbooloo mi nag. Mm. ci fi mu toll nii. wax dëgg yàlla man Wade rek laa ko mën a comparer ci côté boobu beneen bi mooy langage de véri langage véridique bi. bi mu am bi ko waa ji laajee surtout ci côté Matam. ni mu ko tontoo dafa dafa dafa dafa leeral lépp te yooyu ñu war ko bàyyi. Mm-hmm. man damay gis xam nga première ministre boo xam ne bi ñu ko falee ba léegi. Mm-hmm. tegagul tànk sigi coor gi mu dëkk. Mm-hmm. xam nga loolu jàngat la. maanaam sigi coor gi mu dëkk. tegagu fa tànkam. nga bëgg ñu indil ay problème mu Matam ak ñii naan la Touba amul lii ak nangam alors que Thiès Thiès ministre la Thiès am kon xam nga lijjantiwuñu ay naan kii fii ki man lañ jox xam nga waa réew mi li ñu war a xam te ndaw ñi commencé koo xam mooy ku nekk war ko def sa bopp mooy dafa am lu ñu fi teg benn équipe lañ fi teg pour ñu liggéeyal askan wi loolu ñuy liggéeyal askan wi dëgg-dëgg liggéey bi bu ñoo ñu liggéeyee ba noppi fa liggéey bi di ñëwee. parce que yaa ngi gis président Diomaye ci tukkeem fu ci nekk fu mu dem man dama am am pour man koo témoin parce que dafa am sam benn xarit mi ngi Chine sax Babacar d'ailleurs sax far moom bi mu ñëwee Sénégal sax dañ ko jàpp yàlla dogal moog président Diomaye ñoo bokkoon fu fuñ leen denc fii ci Cap Manuel mm-hmm. ay jamono comme moom il était Pastef la nekkoon mm-hmm. mu don leen doon may ci VAP vacances agricoles patriotiques mm-hmm. ma man la ko teg seen sama loxo yu bëri yu mu daan joxe même bu daan jox ministère de la santé ci jamonoy corona beeg yooyu yëpp. Hmm. man la ko jox kii bi it noonu la yàlla dogaloon mooy va vacances agricole patriotique ñoom waa Sine. Hmm. ma ko doon jébbal waroon ko jég jébbal son Sonko mu boole woon ñu ak euh, président Diomaye moo ko réceptionné. Hmm. bi ma koy wax man ma boole ci waxaale ko sama xalaat. muy ay machines yu ñu indi yoo xam ne yu jógee Sine. mais transfert de compétence bi ñu ci war a def parce que jafewut. Mm-hmm. parce que dama gisoon Ousmane sonk yónnee woon fu la ci Daaru Moxti muy góor ga nga xam ne moo fi doon tëgg ay machine u baykat ay sumuwaar ak yu demee noonu di transformer mas moto jakarta yi. Mm-hmm. sumuwaar la ko doon def. Mm-hmm. ma ne leen lii nag su ngeen ko yóbboo ci la ma président di di tooñ booba nag bokkaguma Pastef. moo naan ma li ma seen muy réer di diri ko. Ah, la tombé woon waaw. daal di tombé ko nag Ndiaye Drago. mu ne ma ba ba muy ba fa muy mujj. mu ne ma li mu seen may wax ba fa may mujj. Pastef laay mujj parce que jàng naa saar yi te maa ngi koy tari ak yooyu. mais dafa am benn gis-gis bu ma ci am moo tax bi mu demee siin keroog. en même temps sama waa ji ma ngi fa woon ma ne ko ah lii de xam naa ne du hasard. Mhm. président Diomaye mu dem Chine nekk président Sénégal. dem fi nga xam ne fi machine yi gën a baaxee mais transfert de compétence bi nga xam ne entre nun ak siin ci nañuy tabaxee tali mais entre nun ak siin ci ni ñuy niñ mën a ñoom dañ daan defarlu ay train dañ daan utiliser seen ay ay ay ay de con euh, kii euh, seen seen ressource euh, naturelle di ko transformer def ay train ak yooyu loolu bu ñu ko wàllee Sénégal loolu mooy doon liggéey bi moo tax xool ne sa raison Euh, gox bi nga dëkk nangami ministre laak wala cees juróom-benn la am Thiès Sonko dëkk fa. Mhm. Euh, président Diomaye xëy na moo dëkk njagañaaw euh, kon mbir mi ki ko man la ñu jox ko ko mais li may gën a seetlu ci demu premier ministre ak communication mooy coloré gi dox diggam ak askan wi saa su nekk parce que coloré moom buum la moom mooy la faatu Guewel di wax na mbëggeel weñ guy taaweeku la ñaar ñu ko séq ku njëkk a bàyyi rek rey nga sa moroom kon dafa mel ni ko askan wi téye Ousmane noonu la ko téye te lépp lu ko nar a gàkkal mi ngi ciy dox ba loolu du am mais discours bi nga xam ne moom lay am di ko am vers ndaw ñi. man loolu laay gën a saluer ci postiram daal. d'accord c'est important jërëjëf Saa Wolof ah, merci beaucoup. ma leen di fàttali rek ne suma beneen imaam ñëwagul waaye suma beneen waa ji ñëw na ah Serigne Mbacke Nourou laa ma gëj laa ji Serigne Mbacke asalaamaaleykum wa rahmatulah gaa yëpp a ngi la doon laajte foo nekkoon Serigne Mbacke. waaleykum salaam wala ngaa yaa ngi soog a ñëw. bilaay dew ma sax Matam bi laa jóge nii Gàmbi. Gàmbi nga jóge nii. xam nga retard bi ma am nii bi émission bi commencé ba léegi. may soog a ñëw nii. waaw bi nga may woo. xam nga ci suba yow da nga ma woo appel normal. jotoo ma. nga am xelum dem ci WhatsApp ba woo ma fa. booba génnaguma gàmmi xam nga doo ma mën a jot ah, appel normal dëgg de damaa ñëw rek dem sama kër sangu lijjanti yu ndaw gaaw teguwaat ci yoon bi ak dëkk bu xat bi dëkk bu xat bi it gaa yi war nañ cee wax de ah. saa wolof hmm. comme léegi Pastef nga bokk yóbbante naa la ci sa gaa yi dëkk bu xat